à Un mois, les négus qu'on reprendre. Mais, mais, aussi, les, ah, ah, si vraiment il n'y a pas euh, un projet de musellement mm-hmm. de la presse, j'ai dit, dis s'il n'y a pas, c'est une condition, mm-hmm. il faudrait, au-delà de nous constater souci euh, waro ñu fay waro ñu fay euh da nga wara ki bor war nga ko fay dañu war a aller vers Atebor fay la. mais quand on va vers des. Atebor mais yow da ngay dem ci concertation ne yow yoral naa la bor nangu naa ko waaye bëgg naa la fay léegi amna naa yéene bi waaye léegi gëm na né chaque mois mën naa la fay 1000 francs ngane ma d'accord accord 10 mois 10 000 bi jeex. léegi nag loolu. bu dee nag da nga né di nga fay force wala moo. force force force wala wala doo fi doo fi. wala wala doo fi wala doo fi su man non seulement du ma la fay mais su boobaa yow xale mais dañuy jooy seen kër yi duñu loolu boo waxee dañu xale yi jooy xale yi bàyyi leen leen jooy yu xale yu amuñu benn problème yéen yéen a bëgg rek la seen problème di nga jaay ñii <laughs> bu xam nga daa nagam loolu la normalement il faut payer tes impôts ah, attention bët bët wax nañu ba tey fan yii yëpp ñu ngi kaas oui y a dix neuf mille euh, kenn yëgul on les respecte mais on fait une conférence de presse. on est d'accord moom bet xbet lay wax. ah xbet ah d'accord. oui premier bet il y a xbet il y a premier bet premier bet bi laay wax. Mm, d'accord bet non mais c'est la vérité alamu jàpp nañ ko. pourtant te am na ñu fa doon liggéey di fa suturloo de. non non non mais ñooñu wu leen ah.

400 000 syndicats loolu baaxul la presse sérieuse qu'est-ce qu'il faut Nous devons voilà la solution pour conclure la solution c'est de prendre mm-hmm. les organes sérieux mm-hmm. qui payent les impôts mm-hmm. qui payent normalement les travailleurs Nous dimbali nous ñu am doole bu ko concurrence nous matuñu libre devons kilo sérieux

RTS ñu ëpp jàppoon nañ leen. non non ci ah, saa yu ku ñu ci jàpp. dañ lay wax ni la. y' a y' a des négociations en cours mën nga ñëw ñu waxal comme li nga wax di fay temps par kii boo ko nangoo y' a pas de problème. li ñuy béy mooy ku ni fayu ma. Ah, non am na ñoo xam nañ ñu jégal ñu fay ndànk-ndànk moratoire. non nañ effacé dette bi comme comme li

dañuy dem ba mu sës. Mhm. ministre bi day toog ñu trouver solution yu jàll ci lañu xale yi mu jàngi. et pourtant bu grève yi si taxoon ne non ñun état état parce que boo xoolee exigé defal ma lii état bu ko mënul mënoo fexe ba mu def lu mënul. ñun état bee ñu yore léegi ba ma expliqué la yéen a yoreel état bi. non c'est non li ma bëgg expliqué non li ma la bëgg expliqué mooy bu jafe-jafe amee waxtaan moo war a am loolu laa la bëgg expliqué man du. wala moo tax ñu waxtaan waxtaan moo war a am. Mhm. et pourtant.

combien de jours a que les que moi je suis pas en train de dire que ki a def d'accord. y a des gens qui le disent c'est pas les gens qui parle. donc ce que disent moi. ça parle pas de toi on parle de concertation obligation la tek ci table bi ñëpp tiji ku ne indi sa ëmb ñu tiji ko. Mhm. ëmb bi moy jafé jafé yi mooy xam nañ ne war na yaa ngeen fay mais est-ce que fay leen tout de suite mën na nekk. Hmm. mënul nekk kon lan moo mën a ne lan ah di ngeen fay. Mhm. wa légui nañ nañ ko tàllal. période bi da ko ñun tamit bëgg nañ ko fay mais période bi est-ce que mën nañ ko nga nga wax lan nga mën. li nga mën état d'accord administration fiscale. dem ci loolu ñu dem ci loolu ñu avancé ñu ne ah désormais dootuñu accepter. Mhm. kenn ci réew mi. nga war a fay impôt nga koy dajale bu muy bëri. merci beaucoup léegi loolu mooy trouver des solutions réelles à des so à des à des problèmes concrets. léegi yooyu solution bi du. par exemple noo fay leen. je suis d'accord je suis d'accord bii jaay oto bi. non je suis d'accord si sa solution yooyu mais dama ni la li ma xamal rek mooy solution yi bu ñu ko defee ba. te di tëj. xam nga organ yi lu ñu tàmm bañ fay. ah loolu buñ buñ ñu tàmm la bañ a fay mooy seen dafa bëgg a réduire dafa bëgg a li nga xam ne moo di moo di moo di moo di presse bi euh, Demba ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax waxtu bi ñu corale woon jeex na. jërëjëf merci beaucoup mhm. merci beaucoup à vous Demba di ko jaajëfal bu baax a baax euh, euh, Birame Khoudia yow itam ñoo ngi lay daal di jaajëfal bu baax a baax. Birame Khoudia lay tàggatoo. waaw maa ngi leen di gërëm leen sant vraiment ça a été très intéressant mhm.

vraiment mm-hmm. impossible jërëjëf. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu bu baax a baax mu nekkoon uh, Demba Thioune journaliste uh, politique.